jaay fëgg a jaay doon na métier bu fës loolu jamono ji fii nag ci kolobaan mu bari fi lool foo tourné gis leen seenub mbaar loole waral ñu daal di doxantu ngir xam métier bi naka lañ koy doxalee ana nan la ñuy jëlee seenub bal ak bu ñëwee naka lañ ko fas yéene jaayee loole mooy doon suñu reportage ñu leen ciy taataan ci seeni kàddu. waaw fii dañuy def commande rek bal yi am na yuy jógee Chine Dubaï ba Amérique France yëpp rek mais yow yaay xool marchandise bu la arrangé rek nga def commande. après bu ñëwee ñu woo la période bi nag période kenn mënuñu wax dafa tàng mënuñu wax dafa sedd bi moom bu ci tool da ngay def ndànk rek li naan da ngay def tekk sinon rek da nga dugg ci kàmb bi ndax léegi parfois mën nga mën nañ la laaj yére sedd yi nga dagg ko mu xëy tànk comme nii ma def tey rek gis nga yére tàng yére seddaay laa dagg mais ko fi benn client yére tàngaay yi aussi boo ko daggee ay benn benn moo tax faw la ngay def ndànk di ko détaillé client yi moom boo wootee bu ñëwee ay benn benn lañ ciy jël bàyyi liñ la ci des faaw nga def ndànk sinon rek doo ci génn te bu tàngee ñoo xam ne dafa tàng da ngay obligé marchandise tàngaay ngay jaay waaye bu dee def parfois mu tàng parfois mu ëpp doo xam nooy nooy jaayee waaw ñi ngi sant yàlla nag moom mais nag na mu war a doxee moom doxeewu ko parce que li ma la wax rek climat bi changé gul 100 pour cent sécurité rek xanaa sécurité rek xam nga maire yi moom daanaka bu élection amee rek lañ leen di gis bu passé amatuñ amatuñ fenn soxla ci ñun waa ñun ñoo war a xam suñu bopp nag buñ tollee ci période bi ñuy soxlaa ñu taxaw wax ak ñoom tant que ñu ko liñ liñ bëgg ci ñoom mun ñu ko am. marché bi daal doy na waar waaw metti na lool gars yi amatul bagage bu baax amatul xaw ma nag lu xew daal waaye kuñ ci mën sa jàppale moom nañ si jàppale parce ñun nga xam ne dañuy fii des ñu dagg des fois bu ñu daggul gars yi dañu jaayaat day metti si te boo génnee pour nga jaay ko prix bu normal c'est tout un problème. waaw bagage yi daanaka sax euh, lu ñu gën a bëgg euh, fu mu ne nii yegg seegul waaw bagage yu ñu gën a soxla mooy veste yeeg pili yeeg jaget yeeg daanaka yegg seegul bu baax a baax waaw xëy na kay fii ak fin du dina ñëw ci ñu yaakaar waaw mais met jaay bi moom metti na lool waaw dëkk bi moom tar na trop trop trop jaay amatul. waaw métti am jaaykat fukki jaay dama metti na méttiwul lool. waaye soo déggee ñu ne la métti na maanaam bagage yi fi ñu toll nii xaw gi xaw gee seer gi mu xaw a seer fi ñu toll nii dafa xaw a jéggi dayoo te client yi fi ñëw maanaam duñ comprendre quoi ndax boo déggee ñu ne la xaw naa metti bali fi ñu toll nii bal boo nga xamante ni yaa ngi ko doon jënd tey jii soixante mille wala soixante dix mille fi ñu toll yaa ngi koy jënd quatre vingt dix mille wala cent mille te client yi yi ñu doon jënde ñoom moom la ñuy jëndee ba tey waaw boole koog lu yaas magasin yi seer trop. waaw ba jéggi doyo rawatina logement yi nga xamante ni fii lañ dëkk ca yooyu yëpp ci ñu koy génnee ak bëgg loo yóbbante dëkk ba ak yooyu moo tax daal di fayaale place ak yooyu moo tax daal fi ñu toll mbir mi daal xaw naa metti lool nag waaye nag teewul nag ñu ngi ciy sant bu baax baax ñu sant bu baax a baax ñu ngi ciy xaw a gis suñu bopp daal. bagage yi moom patron yu mag yi ñoo ko jëlee extérieur di ko indi fii ñoom ñoo koy indi jële foofu di ko indi fii ay 20 pieds ay 40 pieds su ñëwee na ñoom suñu wàccee. dañuy jaay ñuy jaay engrais ñeneen ñi jënd di migoro dem jënd ñëw jaay jëndaat jaayaat ñoom ñi nga xamante ni ñoo koy wàcce moom par bal la ñuy jaay par mi bal la ñuy jaay ku jënd lu bëree bëri ay lu taw la cent bal quatre-vingts bal soixante bal bal la ñuy jaay su kooku ñëw teg magasin teg ci luy tolloog cinq mille yenn yi ci luy tolloog dix mille jaayaat keneen keneen ki ñëw daggaat pour jaayaat yeneen clients yi. ay léeg nga dagg bal ba nga xamante ni nga jënd bal tey ji quatre-vingt mille nga jënd bal soixante-dix wala nga jël bal cent mille. nga dagg ko xaaj bi ci des du baax muy morceau yu funux morceau yu tilim morceau ya nga xam ne day màggat lool nga xam ne doo xam ne loo koy def da koy dagg fabaat noonu sol ko dem wanaat ko ki ko jaayoon yenn saa yi mu tegg ci dara yenn saa yi mu ne noonu laa ko jënde man noonu laa la ko jaayee bu boobaat yow yaay perte mais léegi-léegi nag nga dagg ci bal nag macha allah mu rafet lool tubaar la nga jaay man cee gis ci sa bopp waaye nag ay léegi-léegi nga gis ci marchandise yi nga xamante wóor leen ne maanaam client yi ñëw fii sax soxlawuñ ko moom ba noppi ñu takke ko foofu di ko indi fii nga xam ne lii moom ku la ko mayoon ne doo ko jël day am ci bali lu bëree bëree bëri waaw euh, fii ci marché bi moom problème bin ñu am benn la muy comme ñàkk garde daal ñàkk garde waaw ndax chaque jour suñu wàcce dañu laali bagage yi dugal ko ci magasin yi waaw loolu daal am nañ ci problème waaye maanaam courant bi fi ñu toll nii allah balekat yi macha allah bu ñu mairie bi gënoon a jàppale daal ci affaire garde aaral ñu marché bi jàppale ñu ci daal ndax amuñ lu dul fii ndax ñi fi nekk ñëpp ay responsabilité lañ yor ay yor ay soxna yor ay doom ci la ñuy defar seen i kër ci la ñu amee oto ci la ñu am lépp ñu ngi ciy sant daal waaye daal loolu daal moom bëgg nañ ku ñu ci jàppale affaire garde ku ñu jàppal marché bi bu baax a baax bañ mën a tenir bu baax a baax mën a gën a liggéey daal. mu nekk nag métier boo xamante ni yombul ndaxte suñu sukkandikoo ci seenub wax maanaam seenub njaay day ajo rek ci climat bi waaye du te ay yenn saay ñu ciy am ay jafe-jafe foofee nag ca marché ba jafe-jafe gañ kay am moo di insécurité ba tax ñuy sàkku ñi nga xamante ni ñoo di mairie bi ñu dimbali leen ci bu baax a baax lii nag moo nekkoon seen reportage du jour ñu leen di jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen reportage ak ci beneen sujet